mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal c moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butigu c bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbindu bi a jeex bi nag mooy concours zonal bi jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala wala 70 736 36 36. اليوم ذو غداد من كاسة xayru sani الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه الملة الطاهرة التي لا ملة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أولي الفضل والنهى أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله العظيم وأحذركم الدنيا فإنها كأحلام النائم تنتظرون إلى يوم القيامة وأنتم فيها عن أعمالكم مسؤولون يوم تشهد فيه عليكم عليكم ألسنتكم وأيديكم وأرجلكم بما كنتم تعملون قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة الحمد لله الذي أفاض على الوجود بحار النوال وصح على كل موجود سحائب الإقبال سحائب الإقبال والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله بأمره داعيا وللصراط المستقيم مرشدا وهاديا فكان أشد الخلائق وأقواهم عزما صلى الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأكابر الكرماء وأصحابه الأشداء الرحماء وأطباعهم الذين أطباعهم الذين حاربوا من مغنم السعادة الحسنى أما بعد فيا أيها الناس من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال تعالى إن الله يحب المتقين فلا شرف للعبد أعظم من أن يحبه سيده سيده مولاه فقد فاز man baadar ila taatihi wa lazima taqwa wa athara mahabbatahu ala mahabbati kulli ma siwa wa laqad xaaba man shaghalahu an dalika dunya wa athara ala taati rabbihi taata nafsihi wa hawa falnastaxi ya ibadallah min rabbina ay yura ahadana fima yuqarribuhu ila allah mutawaniya wa an nazhada fima tanaalu bihi mahabbatahu wa nargabu fi ladizi fi ladizi yasiru taaniya wa an nanzura ila sixati ila sixati lmaasiyati bal linanzur ila atamati min maasiya wal natadakkar anna alayna xafasatan taktubu ma namal taktubu ma namal wa tuxsi qaala jalla min qaa'il an ilyamini wa an ishimali qaa'id maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yaxfiru llahu lii wa lakum wa li saa'iri lmuslimin Gracias. Yeah. waaw

salaam